Assalamu mbokki internet yi ñoo ngi leen nuy di ziar euh, di wax képp kuy ci chaîne bi ñoo lay ñaan nga abonné activer cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu rek ci gis like di commenter également te di partager vidéo c'est très important euh, gars yi ñëw ci match euh, bu Bayern de Munich bu Sadio Mané ci digënté ñoom ak Fribourg donc 27e journée bu Bundesliga tay mom lañ doon yeux, donc Bayern gagné 1-0 ci loolu lañ fas yéene ñëw également wax ci match bu Sadio Mané mais laata loolu dañuy dem ci page publicitaire bi té ñëwaat. da nga am jafe-jafe ci sa wàllu dund rab daf laa sonal cat jàpp la loo yaakaar mu tas sa wërsëg dafa tëju sa loxo bënn loo yor du taxaw nga bëgg borom kër wala soxna mu jafe la lool sa bopp jaxasoo sa ëllëg jaaxal la lool loolu yëpp bu la dalee solution bi mooy dawal seeti sëriñ Mohamed Jaxate asraar di borom xam-xam bu mag bu yàlla may ci li saxaar bu leer ak ñaan ci wàllu lasraar yow mi bëgg a tukki bitim réew visa jafe la lool wala nga tukki bëgg ay kayit ngir ñibbisi ci réew mi mu jafe la lool dawal seeti sëriñ Mohamed Jaxate lasraar amu ci morom lii bëggante bëggante bu jéggi dayo ak listixaar bu leer wax la say mbir ba nga xam ne kii gis na la loolu ñëpp mànkoo nañ ne Serigne Mohamed Diakhaté amu ci morom ngir jokkoo ak moom woo ko ci numéro téléphone bi 77 334 83 80 wala 78 201 82 44 ak Serigne Mohamed Diakhaté Asrar aajo yëppay faju donc fële ci Allemagne ci Bundesliga ba comme ni ma leen ko waxee 27e journée bu Bundesliga moom la doon Bayern bu Sadio Mané joué contre Fribourg donc mu gagné ko un bi à zéro donc Bayern gagné et que mon difficilement vraiment Bayern difficilement la gagné Fribourg bi nga c'est un c'est une équipe bo xamante c'est une équipe bo xamante ils sont très solides euh, défensivement et que gis nañ li ñen tégal euh, ci match bi donc on a vu euh, tey jii mu nek première titularisation bu Sadio Mané depuis bi fi entraîneur bi di Thomas Tuchel ñëwé donc ngi gis ko mu titularisé ko titularisé ko et que comme comme attaquant pointe gis nañ que ne Moting dafa blessé Sadio Mané teg ko comme attaquant pointe mu nek poste bo xamanteni euh mën nañu wax Sadio Mané tàmmut diko ko jouer même si que sax don ko jouer fele ci Liverpool mais à chaque fois bu ko jouer mën nañu wax match bi mu wara def dëggantaan du ko def pour ñu gis euh, Sadio Mané bi nga xamanteni mom lañu lañ yàgg gis il faut Thomas Tuchel euh, def ko comme ailier foofu la ko war a placer exactement mais gis nañ que ne Sadio Mané def na match bi mu waroon a def dugalul nag dugalul euh, vraiment mais euh, en tout cas joué na un euh, match bépp joué na match bépp mais li ma ci manti wax rek Sadio Mané war naa yëkkatiwaat niveau bi hein, parce que liñ koy doyee dëgg mooy dugal ay bi même si que sax du du du comme. parce que actuellement noonu foofee ca Bayern place yi dafa seer trop également concurrence bi bari na trop il faut que muy dougal ay biir di def ay passes décisives c'est important pour mu mu mu retrouver wat confiance am également rythme bi mu nekkoon mu nekkat ci donc Sadio il faut nga yëkkati niveau bi surtout Thomas Tuchel mi nga xamantene bi fi ñëwé yagul niveau euh, niveau entraîneur bu bees la et que il faut nga jëm ko convaincre li ngay convaincre moy sa performance ngay def ci terrain bi en tout cas ñu ñu sa gannaaw ñi ngi lay encourager encore une fois mais Bayern bi ñu gis il faut tamit ñom ñëpp ñu donat comme équipe du jouer collectivement gis nañ benn le Sané tey jii on peut dire que est dafa égoïste parce qu'il y' a beaucoup d'actions yo xamantene xamante euh, war na ko euh, war na waroon naa mën a mais vraiment le roi Sané encore une fois li defat moy mooy non quoi mais en tout cas les gens andi wax wéy di like wéy di commenter